ah Sali Diallo ngi nii <laughs> waa Mbour ñoom Pape Sali ngi nii billaahi ngeen ñàkk Sali. waaw am na lii nii la lay dóore. waa Mbour Sali ngi Pape Sali ngi nii de machine benn kay machine benn kay dóor vip ah. machine benn kay vip vip vip machine benn kay Uh-huh. no Pape garaawul léegi mu ñëw sali léegi mu ñëw sa jigéen dina ñëw léegi bu ma ko faral di faral. na waar. nu muy def. <laughs> ma ne ko lay dóor ay mbuur basaal bi. waaw waaw. foog nga ñam yaa nekk mbuur kay. bopp ba di jox gars yi biorahma foog nga ñam. waaw bopp bi lay ñëw biorahma mooy ñëw ci bopp bi ah. di ndajaale tànk yeeg loxo yi. waaw lépp lay laal. ah kii nii maase de comme nit buy maase. ah baax na. ñaw. ku jaay produit laaj na yenn saa nga maase wu. waaw ñuy jaay ñoo ci war a jëkkee. fan la fan la ñëwaat léegi. commencé waat na dóor yi. waaw kay. <laughs> <laughs> Ndiaye filmé bi doy na waaye yow ngay jaay nit ñi ba pare di wan nit ñi ba pare waaye. Ah, de. gaa ñi gis ngeen ko de machine baa ngi nii muy fauteuil de massage boo xam ni cabinet bio rahma tey nag Sali moo jóge Mbour ne moom tamit day ñëw pour noddanti yaramam comme ni ñëpp ma ne ko tey nga dee de <laughs> waaw nga dee de des na de. Mm. waaw. des na de des na une minute ak lu topp. waaw faraj faraj rek fan la wàcc. waaw kay gis nga. soo paree nag sa yaram day belli. <laughs> waaw sa yaram day noddanti ko parce que nit yenn saa yi day baax nga fudd. sa yaram service est presque fini. waaw nee na des na cinquante 57 secondes. cinq cinquante 54 waaw. nee na def na cinquante secondes. waaw tey Salé ñëw nee na des na 48 secondes 47 waaw nee des na 43 secondes tey Salé la de Salé Mbuur nee des na 35 secondes ki mooy Salé moom ngeen di woo 77 517 54 21. mooy borom 77 517 54 21 bii Rahma Mbuur oh, oh. nee des na 20 secondes. dafa ne moo ngi ñëw fan ci loos bi mhm. waaw nee des na onze secondes dix secondes neuf nee na des na sept secondes nee des na deux nee jeex na. de la fin s'annonce l'heure de la fin s'annonce heureux de vous servir et passez une excellente journée. Ah, macha ah, Sali loo wax nag. ah macha Eh. am na solo kon waa Mbour géej ñëw leen maase wu eh, Sali Diallo bi yoram maa Mbour waaw kay fii tey di maase wu defar yaram bi waaw kay nii na tàkk gaañ kontaan naa am na dinaa jël bu mel ni indi ko Mbour waaw incha allah waaw kay <laughs>